Barthélemy tey euh, tribunal bi nag jël euh, décision maanaam euh, teg verdict ba pare nag def ko amende vingt cinq mooy sa réaction nag ci biir décision justice. ci amende bi laa jëkk commencé fii ci ëtt bi ngeen nekk la Macky Sall ne woon que mbir bi yëpp c' était l' état du Sénégal qui est responsable kon nag Macky Sall na dem fay vingt cinq millions yi du Sénégal qui est responsable puisque ce jour là. la police a été appelée ñëwul puisque c'est un complot d'État naka Macky Sall fay ñun kooku taluñu ko buñ ko fay tey duñ ko fay ëllëg kooku ay caaxaan la léegi et puis balaa ngay condamné nit mu fay amaan il faut na ko fay léegi euh, décision bi décision politique la yàgg naa wax ne procès bi politique la décision de décision judiciaire décision politique lu tax politique parce que dañu bëgg rek éliminer Barthélémy Diaz n'est-ce de la scène politique en bu bañ a nekk candidat aux élections yi di ñëw jogante yi di ñëw et puis après ñu kii ni ko politiquement am na nag ñoo xam ne dañuy yaakaar ne man Jean-Paul Dias danaa ñëw sujootal leen bu doon bu du loon wax en public sax daan leen wax leneen waaw bu ma sujootal kenn mais nag dinaa ci affaire bi parce que ñëpp seetlu ñu ne dama ci mandu woon dama ci teylu woon dam bañoon naa wax et cetera mais léegi loolu jeex na comme verdict bi politique la concernant une affaire politique man en tant que citoyen je me positionnerai au plan politique et je combattrai cette décision là décision bi dafa mel ni dañ ñu saaga dañ ñu saaga sénégalais yi saaga xam étudiant deuxième année de droit sax boo ko waxoon lii mu ne la mënul nekk un procureur boo xam ne un substitut du procureur boo xam ne bi muy wax wax na lu lan yaakaar naa ne defe naa ne eh, kii dafa muus et cetera bu muusee te yow jàppaloo ci nu mu muusee c' est que yow tu es con loolu la voilà donc bu muusee da ngay montré na da ngay démontré na lu muusee nit dee na rey nañ ko da ngeen war indi arme bi ko rey indi wuñu ko da ngeen war a indi bal bu ko rey bal bi xëy na ñoom am nañ ko mais bal boobu mënul génn ci même ci pistolet bactérie c' établi balaa maa dee sa procureur nañ ne C'est la même société qui fabrique les balles de 9 et les balles de, de, de, des balles calibre 9 et des balles calibre 38. Il est stupide. Comment le, pistolet peut tirer du 9 et du 38 Nous, nous donc indi ñu benn firnde indi ñu benn preuve du ñu ko nangu du ñu ko nangu suba